moo ñu ñew fekk fekk allah ay alquran alxuraan euh, Lo jang la wala luñ la sol la. man dama dem jangi Mali ki ma jangal alquran mu ngi tuddu samsidin muhammad muktari Gari fi bayatul islami ansaru din. moo ma jàngal diine moo ma nu jigen wara julli li jigen wara def jigen ñun ñu ne ci le fi bayatul islami momoko jangal ko yep, man dama jël laydu man duma jéene man duma fen man duma satch li nga xamantene dafa xaraam man fatumata duma ko jage. ibadullah be be ibaadu ansardin Sharif Man khaydara wuli bali moy sama talibé ak Samsidine mohammed Gari euh, kon do laal xam-xam bu ñuul xam-xam bu ñuul bi nga xamantene ne suñu borom sallallahu alaihi wasallam santane duma ko laal dafa parce que du sama diine man ci diine lay waxe ci diine lay liggéeyee ci tuuru yàlla tuuru yàlla bi mooy pouvoir bi ci bopp bi la nekk ak bant yu ma yàlla jox gis nga lekket yi gis nga lu fi nekk yépp tuuru yàlla la li nga xamante ne dafa xaram du dugg ci sama liggéey parce que jullit laa damay wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Euh, est-ce que tey di nga yëngu ci ay wàllu reen wàllu sunguf wàllu yenn cangat yi est-ce di nga ci di yëngu ndax gis nañ ko fi. parce que suñu borom sallam dafa wàccee aaya yi nga xamante ne inna fataha laka fataha mubina am na yi nga ci xam ne moom nga war a ubbi ci téere alxuraan yi nga xool ci reen yi nga war a sàng nit ki nga bind aayaay raxas ko wàccee ko ki nga war a jàppale parce que suñu borom loolu la wax yàlla dafa ne iqra bisimilahi rabbika allazi xalaqa balaa nga may jaamu nga xam may kan nga war maa jaamu waaw euh, Fatoumata kon mën nañ wax ni daal euh, fii daal ku fi ñëw sa aajo faju ndax am na ay sarax dangay tuur deret wala doo tuur deret <coughs> laa gaaw ma tuur deret parce que deret du lépp nañ koy tuuree ci noonu ñi am ngelaw yi sax gaaw ma leen tuural deret damay taxawal seen xar taxawal seen bëy ma wax ak samay ruuxaan ak liggéey bi ma yàlla sant ma jël arxuraan xeex geer man sama liggéey jixaat la dafa metti parce que am na ngelaw yoo xam ne bu duggee jigéen góor bu ñëw day waxtaan ak moom ba mu yaakaar góor gi dellu du ko gisati jigéen yi Sénégal yi bari léegi lal sol lu nga xamante ne suñu borom sallallahu alayhi wa sallam santaanewu ko ngelaw dugg leen pour am liggéey pour am doom pour sey problème ngir yàlla jigéen yi muuru leen parce que solin yi solin yi rafetul jigéen du du ci luñ koy waxee du ci àdduna yàlla moo ne jigéen da nga war a muuru jigéen da nga war a sol lu yiw parce que la lu jigéen lu rëy la ba pare yàlla mayaatu ñu diine l'islam kon nag diine bi ku ko bañ da nga nax sa bopp parce que diine depuis àdduna ba yow malkiyam moom lañuy ñuy fekk kon nag man sama diine ak sama xam-xam ak sama pouvoir lépp ci diine lislaam laa koy liggéeyee. Fatou Mara est-ce que di nga tëdd ba ci yàgg ñu wan la ay sarax yu ñu war a def ngir réew mi am jàmm. wala safaan bu war a ñëw ci réew mi nga tëdd ba guddi ñëw won la ko nga gis ko. léegi paas ma kaye bi jox ma kaye bële parce que sarax yi foofu laa koy bind ak safaan yi yu ma yàlla di jox. waaw bima yàlla jox sarax tonton Bassirou Diomaye Faye ak Sonko saraxam yu ma wax safaan tonton basiiru Faye Diomaye le président de la République de Sénégal man Fatoumata Dabo bi ma duggee ci wàllum safaan réewu Sénégal pour Sénégal mën a am jàmm sow cinq panneaux de pas mer papier marabout, sans dak yu sans sans goro bougie sans pomme sans tandarma, Mom la qui ci Sénégal qui la rahim Alhamdulillah, rabbil alamin bima defé sarax yoyu département de Bignona le commandant CB de la public de Bignona bima defé defee sarax yi yàlla def ci barké sama sarax yi yépp yalla nangu ko ma dugg rond-point Bignona quatre heures du matin def li ma def def ñaani yi ma yak liggéey yi nga xamantene ba si ñi je alif lam lam ma yak liggéey yi nga xamantene suñu borom sallallahu alaihi wasallam santane ko ci diine l'islam ak tamit ci mbirumu yalla ma sulli liggéey yoyu yak ko man ak sama talibe yi ba yalla def ñu bañu am ndam li ci réewum Casamance département de Bignona ak dakaar kon nag tey duma mën a wax lu bari xol bi dafa fees man mii xale bu ndaw juddu en quatre may daw ci wàllum suñu réew mi pour ñu mën a am jàmm kon nag tey dama bëgg tonton Bassirou Diomaye Faye ak Sonko ñu invité ñu ñun fajkat yi yi nekk département de Bignona ñi nga xamante ne <coughs> am nañu carte de guérisseurs pour ñi mën a ñoo génne salte bu nekk Dakar Dakar dafa salte Dakar am na li nga xamante ne lu fa nekk suñu borom sallallahu alayhi wa sallam santaanewu ko deret yu tuuru Dakar dañoo war a jóg ci bisimillah tàmbale ko ci araxmaani ba réew mi am jàmm ba buntu wërsëg yi ubbeeku première solution fu ñu war a njëkk a defar mooy le pale de deuxième ville Dakar kon nag mënuma wax lépp xol bi dafa fees fees xol bi dafa tooy waaw am na sama benn taalibe bi nekk Afrique du Sud maa ngi koy nuyu moom tuuram duma ko wax ci télé parce que moom tamit taxawal na ma ba armée ñëw guddi di ma jël may dem liggéey maa ngi gërëm armée Sénégal may gërëm armée Sénégal di gërëm le commandant CB de Bignona di gërëm sama tonton Joa Senkoli mi taxaw ba ma bokk ci association des guérisseurs ba ma am sama carte des guérisseurs kon nag tonton Joacim Coly maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak njabootam ak soxnaam ma dellu di gërëm Abdoulaye Diallo Falmaré mi jur Julde Diallo Abdoulaye Diallo moo jur Julde yaayam ñu koy wax Dalanda Diallo kon nag mënuma lim famille Diallo Kounda maa ngi gërëm famille Diallo Kounda bu baax a baax di nuyu waa Bagnan famille do Diallo Kounda parce que ñoom ñoo ma teeru ñoom ñoo ma teral ñoom ñoo ma defal tey fi may amee sama pouvoir ma ci liggéey ñi ñii di ma uyu si kon nag maa ngi wax Pa Abdoulaye Diallo mi jur Mamadou Julde Diallo jërëjëf naka yàlla fay yàlla ubbil ko wërsëg ak njabootam yàlla may ko gudd fan ak wër bu yaram ak soxnaam Mariama Dalanda Diallo ak sama waajur ami jeeju ak sama papp Massiré Dabo jërëjëf ilal xaay sukkuran jazakallahu kabiran asalaamualeykum wa rahmatullahi taalaahu wa barakatuhu aywa yaa jamoon lislimun wa lislimatin ilal khay ilal khay sukuran kon mbokki internet yi yene ko gisandoo duñu tejj ak mom te ñewuñu ci yenn laaj yi nga xamanteni euh manam nit ñi dinañ ko soxla est ce que di nga yëngu ci walu lamb tay bari na ay est ce que am ay mbeur yu lay ki pour nga di leen defal ay ñaan ak yoy sumbulu bàcc sumbulu bàcc tay bo gisee musiwu senegal di jouer théâtre sama mam. magu ba sumbulu bàcc moo takk sama mag mu ngi tudd Gassi Daabo Sombulu li jëkkëru Buri li mi tudd Balla xam nañu Balla xam na ma bee dina fàtte parce que bu muy ñëw Casamance yàgg na ak ñeneen ak ñeneen ci mbëru Sénégal toujours bu ñu nee combat dama leen di defal ñaan kenn santuma ko kenn yónniwu ma ko man may def samay ñaan pour mbooloom jullit ak ñi nekk ci hôpital yi ak ci nekk ci kaso bi parce que yàlla lool la santaane bu la mayee pouvoir jël ko nga jàppale mbooloom jullit sa pouvoir bu ci soxor bu ci néeg am ci yërëmande nga dawal diine lislaam yàlla dina la jàppale yàlla dina ubbi wërsëg bi mbokki internet yi kon yéen a ko déggandoo kooku moom moo nekkoon Fatoumata Diallo nekk fii dra daabo nekk fi nga xamante ni mooy na Bignona euh, est-ce que mën nga joxe adresse bi ak numéro téléphone bi nga xam ni. maa ngi dëkk koñ bu ñuy wax Falmaré HLM sama numéro téléphone 77 509 23 24 deuxième bi 77. 020 49 80 ñaari numéro yi moom laa am mooy sama numéro waaw. Euh, Fatoumata looy tàggoo. man daal li may tàggoo maa ngi wax mboolum jullit na yàlla yàlla fajal ku ne aajoom réew Sénégal am jàmm suñu papa basiiru Diomaye fay yàlla may ko jàmm ak gudd fan ak ñuy topp ci ministre yi ak yeneen ministre yi yàlla may ku nekk gudd fan ak wër bu yaram réew senegal am jàmm parce jàmm mooy lépp yàlla raxasu diine lislaam ba ñépp mën a fonk diine diine nañ ko téye lu baax a baax bu ñu fooyee diine seytaane bam ñu jay seytaane bam ñu nax parce diine bi buñ ko sàgganee rekk dinañu perte lu bëri ci suñu réew taranga Sénégal réewum taranga la Sénégal tuuram dafa siw tuuram dafa dem kon nag maa ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin mbokki internet yi kon ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo lépp loo xamante ne rek euh, Fatoumata doon na ci yëngu euh, fas yéene nañu leen ko baaxe xam naa ni nag euh, du ñu ko bàyyi ndax ñun ak moom dañeen dinañ jàppante ba nga xamante ni saa su ne bu ñu fi duggee di def ay liggéey ngir wane la nit ñu baax ñi ak askan wi moom moo ñuy dalal dinañu ñëw ci moom ngir waxtaan ak moom kon mbokki internet yi ñu di leen jox dig daje ba beneen